بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسنيل أقدار يلاو سفي بقاء بي لفيك يلاو بسم الله يكفيني أقدار يلاو سفي بقاء بي لفيك يلاو يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى مالك وعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت علي مراسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنت علي مراسي أرجو برحمتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقل مثال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا أني وأن كردي تدار يا الله أنت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 moo xam ne kenn ci nun umpalewu ko ci soloom ak njariñam ndax bi yàlla dogalee bi yàlla bindee doomu te xàllu yoon joxoñ ko yoon wu jub wi mu bëgg mu jaar ci dafa yónni ay yonant wax leen ñu gindi nit ñi leeral seeni xol leeral seeni xel ba ñu mën a xam fi ñuy teg seen tànk mission boobu nag nit yàlla yi nga xam ne ñoo ñëw gannaaw yonent bi yépp mission boobu la ñu doon li loolu moo waral a cheikh ahmaduna cheikh ahmadul xadim radiallahu anhu wa nafaana bi barakaat yi xam-xam ak jàng ak dindi nit ci kumpa fexe ba mu doon nit ku jub ku am xam-xam jaraloon na ko lu ne def na ci lu nekk it ci école am muy ko école bu Cheikhul Khadim mën nañ ci lim ñu baree bari ñoo xam ne ci lañu ñu ñoo ne itam am ñu bare ñoo xam ne ci seeni école la ñu génne ba mu agsi ci Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ne moom Cheikh Mahmoudul Moustapha teel naa yeewu lool teel a xam lool njariñ li xam-xam am ci nit mu taxaw temb nag ci nit ñi dañ kumpa waaye itam am lu jàpp mu tàmbali ko bu yàgg liggéey ci liggéey bu rëy boo xam ne kenn nattabliwu ko réew mi nattabliwu ko àdduna nattabliwu ko yoonu murid tamit mënu koo nattable ndax dafa fës loolu nag tax njabootam gi mu fi bàyyi li dale ci sëriñ Mbàkke Mouhamed mi ko njëkk a wuutu ak sëriñ Abdul Fatah ma ca topp kenn ku nekk ci ñoom la doon sa yitte mooy sëriñ Cheikh lii mu bàyyi mu di aw naal muy fexe ba nit ñi dañu réer kenn ku nekk def ci sa kemtalaal kattan sëriñ Mbàkke Mouhamed kenn ku nekk xam na ne lii sa bee ca njaareem bi fi sëriñ Cheikh jógee ci 1981 82 la ko teg sëriñ Abdoul Ahad Mbàkke ak sëriñ Mbàkke Madina ñoo teg ci woon xeer wa loole lépp yokk jéegoy sëriñ Cheikh ak mottaliw naa lam rek moo taxoon sëriñ Abdul Fattah itam ca loolee la rek la nekkoon ca gannaaw magam ja ndax se boobu bañ ko taxawalee fédération bi nga xam ne moo doon sayti njàng mi sëriñ Abdul Fattah dafa daal di instaurer li ñu wax solidarité mooy ay reçus yoo xam ne ku bokk ci fédération bi da nga koy jënd te suñ ko jëndee duñ ko jëmale fenn fu dul bi mu fi daataan jóge nag moom Serigne Abdou Fattah mu taxawal fondation boo xam ne fondation Gaynde ma lañ ko tuddee ànd ci ak njabootu ak Serigne Cheikh Mbacke jëpp kenn desul bi ko yàlla noppalee nag teg fi Serigne Abdourahmane mii nga xam ne yàgg naa wax ne fii ma toog de yaakaaruma woon ne dinaa fi toog ndax man damaa jàppoon ne damay toppe rek te loolu ku ko xam da nga xam loolu ci moom bi mu fi jógee Serigne Abdourahmane nag fas yéene. naal yooyu nga xam ne moom la Serigne Cheikh naaloon te muy loo xam ne sumbi Serigne Touba la woon te muy loo xam ne naal yan bi la woon muy lu suñu borom digle mu taxaw moom njaboot gi mu njabootu Serigne Cheikh bi nga xam ne ñoom la jiite ak euh, jullit yëpp ak taalibe fexe ba naal yooyu ñu def ci seen kéemtalaay kattan loolu moo waral ñu woote bis bi tey fondation boobu nag moo am yéeney tabax fii ci tookar bi tookar bii lycée boo xam ne. bu dëppook jamono la boo xam ne euh, lépp loo xam ne moom la ñuy soxla ci wàllu xam-xam ak ci wàllu nekkin ci wàllu lépp rek bu ñu ñëwee danañ ko fi fekk kon loolu mooy mooy bis bi sëriñ Abdou nag bi bis bi jotee ni mu war a def def na ko mooy yëgal ñépp ne ku bokk ci yoon bi ku bokk ci diine ji ku nekk ci réew mi mu yëgal la lii may wootee maag yow ñoo ci bekk benn benn gis-gis ñoo ci war a bokk benn gis-gis ñoo ci war a bokk benn taxawaay ndax Serigne Cheikh mi ko taxawaloon moom kenn ku nekk dalaa jàppe woon ne boppam kon mbokk yëpp mu yëgal leen waaye mbokk yëpp nag ñëw nañ ñëpp wuy si nañ ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ۖ inna allaha la yudiicu ajra almuxsinin wala yunfiquuna nafaqatan sagiiratan wala kabiiratan ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Sadaqallahul Azim. Permettez-moi de transmettre le mot de l'administrateur de la Fondation Gaïndé Fatma. Monsieur le représentant du Khalife général des monsieur le représentant du gouverneur de la région de Diourbel, monsieur le représentant du maire de Touba, monsieur le président de la Fondation Gaïndé Fatma, khalife de la famille Cheikh Ahmed Mbacké, Serigne Abdourahmane Mbacké. Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, et qualités. Assalamu alaikum wa La Fondation Gaïde Fatma s'honore de votre présence aujourd'hui dans ce site symbolique pour la cérémonie de la pose de la première pierre du Cheikh Mohamed Moustapha Mbake et sous la bénédiction du Khalif général des Mourides, Serigne Muntaha Mbake, Yann Oui, Ce lieu est symbolique. Il est hautement symbolique car il fait l'objet d'une disposition testamentaire de la dernière volonté de Cheikh Ahmed Mbacké Gaïndé Fatma. La fondation Gaïndé Fatma que j'ai l'insigne honneur de diriger avec les conseils avisés de Serigne Abdourahmane Mbacké a été créée en par les membres de la famille sous l'égide de feu Serigne Abdou Fatah Mbacké rahmatullahi alayhi. L'objectif de la fondation, qui a été reconnue d'utilité publique par le décret numéro 2010-92 du 26 janvier 2010, est de faire perpétuer l'œuvre de Cheikh Ahmed Mbacké dans les domaines éducatifs, économiques et sociaux. C'est dire que la mission est titanesque. Serigne Cheikh Ahmed Mbacké était un homme d'une dimension exceptionnelle et dont toute la philosophie était articulée autour de l'humanisme et de la promotion de la dignité humaine par le travail et par l'éducation. Il était d'une générosité légendaire. Sa vie durant, il ne cessait de venir en aide et d'assister les personnes quelles qu'elles fussent leur origine ou leur appartenance religieuse et sociale. Très tôt, il avait beaucoup investi dans l'éducation pour combattre l'ignorance et l'obscurantisme. Dans les années 60, il avait fondé la première école arabe de Durbel, l'ancêtre des écoles franco-arabes actuelles, dite école Serichère. Cet établissement cinquantenaire a formé des milliers de cadres devenus professeurs d'université, ingénieurs, administrateurs civils, ambassadeurs, médecins, notaires, etc. Mais également dans les années 70, il construisit sur fonds propres plus de 250 écoles à travers le pays et soutint et aida des jeunes étudiants pour aller poursuivre leurs études notamment au Maroc, Algérie, Tunisie, Liban, Égypte, mais aussi en France. Par ailleurs, il serait fastidieux de citer ici ces nombreuses réalisations économiques dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Voilà un visionnaire qui avait fait un pari sur l'homme, considéré comme le principal acteur de développement. Certes, sa famille lui doit beaucoup, sa famille lui doit tout, mais les Sénégalais aussi lui doivent beaucoup. C'est sans doute ce que le président Abdoulaye Wade avait compris en facilitant l'existence juridique de cette fondation et en lui attribuant un terrain d'une superficie de plus de 3000 m2. Mais nous sommes légitimement fondés à espérer que son successeur, le président Macky Sall, en fera autant ou même plus. Tout comme nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour apporter leur prière à l'édifice et contribuer à la réussite de cette fondation qui est la leur. Je ne saurais clôturer mes propos sans, rendre un vibrant hommage et adresser mes vifs remerciements à Serigne Mountakha Mbacké, pour sa contribution subséquente à la réalisation de ce projet. Que Dieu le Tout-Puissant lui accorde une longue vie ainsi qu'une très bonne santé. yàgg te Je vous remercie de votre attention. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. ba tax na mu leen di université bi ñuy liggéey. liggéey bii waa kër Serigne Cheikh di liggéey. dafay dugg si liggéeyu sëñ Muntaxa bi ndax lépp sàkku xam-xam la ak njariñ si doomu aadama yi ba tax na sëñ Abdourahman bi ñu ko waxee ñu sawar si lool ngir ñaar yëf bu njëkk bi mooy ndigalal sëñ Muntaxa la ndigalal sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma la ndigalal itam ki saf yoon bi la bu si des itam bu suñ borom dogalee ñu teew fii di wax ginnaaw yàlla Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo ko waral ndax bañee tuut tànk moo joxoñ baaraam suñ waajur dugal ñu si daara ji ba la fa meññee lu ma di ginnaaw yàlla si moom la jaar Serigne Abdourahmane dafa ne woon na liggéey bi baax na liggéey bi sakkan na liggéey bi gaaw ñu ne yooyu nag buñ ko bëggee boole dañ koy tëral ci xam-xam muy wàllu ingénieur fi mu toll ci jamono yi nañ ko dëppale liggéey bi ak xam-xamu ingénieur yi lu jëm ci wàllu génie civil liggéey bi muy euh, lycée bi du ñoo prévoir mu nekk R plus 3 maanaam rez de am fukki classe ci suuf ñetti étage nekk si mu war a nekk bu sottee ñeent fukki classe nee na koy tàmbali waxtu wu nekk ñu mën koo yokk ba mu egg fañ jëm ah, ni ñu dëppee plan yi moo di ne dañoo bëgg bu ñu duggee rek ñëw ci li ñuy wax administration ñi nga xamante ne ñoo yilif euh, këru jàngukaay yi foofu bu féete ku am yitte si ñoom mën a ñëw moo xam wàllu inscription la moo xam wàllu formalité administrative la nga mën a def loolu lépp ba génnaat te jot ak dara ñuy jàng moo tax si buntu daara yi lañ def administration bi defaale si bibliothèque boo xamante ne nii kër yi xam-xam yi foofu lañ ko def téere yéeg yooyu ngir ñuy sàkku euh, xam-xam si daara yi mën a xóotal seen xam-xam si foofu bu weesoo administration bi ak parking bi ci bunt bi ñu rangalee ñaari bolom classe yi bu féete nay joor am ñetti classe bu féete càmmooñ am ñetti classe mi juróom benn si digg bi ñu def ñu ñeenti classe muy fukki classe si suuf boo ko defee noonu lañ ko bëgg a toftalee si deux premier étage ak deuxième étage ak troisième étage bu ko defee boo boolee fukki ñeenti yoon muy ñeent fukki classe yi nga xamante ne war nañoo mën a dajee si barab bii nga xamante ne buñ xayma woon ne juróom fukki ndongay daara si classe la buñ boolee lépp dana mat ñaar ñaari junni yi ndonga yu mën a jàng ci barab bi bu sottee lépp beneen bi si topp ah, ñu ne boo dajalee mbooloo mu toll noonu ci ay xale barabu fajukaay mënut a ñàkk muy infirmerie moom lañ teg ci gannaaw ngir ñu mën a saytu yaramu xale yi ah, barabu wàccaay te mënut a ñàkk ñu def ko ci gannaaw ngir ko am yitte mën koo jëfandikoo ah, ci penc mi nag ñu ne lu wuutalee daara ji ak yeneen daara yi mooy diine ji ak boroom dëkk bi muy Serigne Touba ñu ne nañ daal ci penc mi am mbaar moo xamante ne nii xale yi danañ ci mën a dallu buñ jëlee récréation waaye tam bu daayira amee mën na faa dajee buñ bëggee xewloo te mën nañ faa nekk moo tax ñu ne ci penc mi dañ fa def mbaar moo xamante ne nii xale yi danañ fa mën a dajaloo ngir it ñu mel noonu bu ko defee. boo duggoo itam prévoir nañ sécurité lu mel garab gardien ak yu ñu soxla nga xamante ne moom mooy sàkk mooy fàggu wàllu sécurité bi si tënk noon lañ ko tëggee li si des nag mooy wàllu garab yee ak yi muy àndal ba barab bi taaru man a jàpp ni ba ku sàkku xam-xam nga mën koo am nu mu gën a jàppandee liggéey bu mel ne itam nag ndax day daara yoo xam ne lu war a yàgg la kon day laaj ñu def étude yi ci war muy étude géotechnique yi muy étude de structure yi boole ko aussi ak bureau de contrôle boo xamante ni dana mën a valider tout le process yooyu yëpp dañ ñu koy waajal ba nga xamante ne bu ko suñu borom sottalee li ñu fiy liggéey dana dëppoo ak jamono dana dëppoo ak qualité te itam yàlla suñu borom mën naa dogal tam mu yàgg lool. kon yéene mbooloo mi muy ak jafatul muridiya mooy jël seen xam-xam. jël seen doole jël seen alal dugal ko si liggéey bi ndax sëñ Tuubaa ñu may lépp moo ñu amal lépp te suñ lépp mooy sëñ tubaab kon daal sëñ bi lañ la ko waxee woon muy guddi muy bëccëg waxtu waa ñu soxlaa ñu sa gannaaw sa bëgg-bëgg mu ngi xam ne dana la si jiitu boo ñu ko waxee danañ ànd ak yow lépp ngir na ko suñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma waajale woon ñu am loolee ngir la dee gërëm ëllëg salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu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 mboolem fondation sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma ñu ngi leen sant cant gu rëy rëy ci xaalis bi ngeen ci def ci yitte gi ngeen koy teewoo ci laaj gi ngeen koy laaj ak saytu gi ngeen koy sat ndax seen ndono la sunu ndono la ñu ñun itam ñëpp lañ koy a laajandoo waaye yéen a ko gën a yor loolu nag fàttewu leen ko parce que sëñ Abdourahmane yow ak ñi nga àndal ci njabootu sëñ seex ci fondation bi sëñ Cheikh bi ñu ngi leen di sant fa sant mën a yem ndax ku mun sant nit soo sante yàlla yàlla mën naa am ko nangu ñu leen di ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di jaajëfal di leen masawu coono waaye di leen ñaanal yàlla yàlla mi nga xam ne moom rek man lépp lu nit jàpp ba mu sotti yàlla ca àndal yàlla na la yàlla taxawu yow suñu abdu ak ñi ànd ak yow ba ngeen sottal ko lu raw lii fondation moom su ma leen doon sant tey jii du ma fi jóg waaye nag lu doy doy li ci des ci xol yi la ak ci ñaan yi te léeg-léeg nit mën naa ñaan yàlla nangu yàlla na leen yàlla eggale barke Cheikhul Khadim yàlla rek mooy jël nit di ko yëkkati di ko darajaal di ko kaweel yàlla mi man loolu yàlla la yëkkati yàlla la darajaal yàlla la kaweel yàlla la sàmm yàlla la aar yàlla la barkeel te musal la ci seytaane kum dog ak képp ku la ko yéene ak ku ko bëgg maag yow suñu noppee ci loolu ñu santaat bu baax a baax nag waa fédération bi ak taxaw yi ñu ci taxaw seen yëf la waaye da ngeen a def lu leen war moo tax ñu leen di sant def ngeen li ngeen man waa kër sëñ Cheikh di leen ci gàttandu si ku def loo man wàcc nga te ab jaam du wàcc yàlla lay des kon yéen ñëpp sant nañ leen la ko commen commencé ci sëñ Moustapha moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma mooy président bi ba ci man sëñ Bakkaloo mais képp ku ci bokk te yàlla taxal ngay def yàlla na la yàlla fay ngeen ci fay te sellal la ko ni ki noonu itam danañu sant ñi génnee ci école bi ak mbooleen kuréel buñ mën a bokk su boobaa mën na cee jiital sëñ Moussa mi nga xam ne moo wax ci turu administrateur général bu fédération bi ak ñi mu àndal ndax yàgg nañoo yittewoo école bi yàgg nañ cee def seen loxo yàgg nañ ko def ci anam gu ne bari na nag yeneen kuréel ndax tey fii ñu nekk ab lycée la mooy tabax bii ngeen jàkkaarloo ndimbalul yàlla mooy ak kër la woon bañ demee ba soxla ko xam nga seen bi su soxlaa kër ne man mën naa koo jox waa daara yi loolu yittewoo xam-xam la. ak bëgg a faj soxla su jampa jampa jamp waaye fu ñu def ngir dëkk wax dëgg yàlla du barabu jàngukaay waaye nag suñu ko joxee abal ñu ko ngir loolu lu muy foole yitte ko leen maam sëñ Tuubaa mu baax ma radiyallahu anhu wa ala maqaamahu dafa génn këram jox ko maam sëñ daam Abdourahmane Lo loolu doy na ci sëkk ngeen demaat ba ne fii nag damaa bëgg ngeen dem foo xam ne day répondre day wuyu ci sart ak xàll yi nga xam ne moom lañ tër ba bëgg tabax lii loolu ko itam euh, wax dëgg yàlla mënuñoo def rek lu may sant leen mënuñoo def loolu gëm gërëm leen waaye nag noonu ñu sante mboolem ñi nga xam ne ñoo jàpp ci njàngale ma muy taxaw ndax condition yi yombul sëñ Bachir tudd na ko léegi ak résultat yi ñu am loolu da ngeen may may tuuti rek sarax ma ci ma bokk ci li ma ci bëgg a bokk jamono dafa am lu ñuy wax défi maanaam jafe-jafe bokk ci gàttal boo xam ne danay gàllankoor doomu aadama mën naa am dana nekk ci aw yoonam mu koy tuddee ci wolof ay pakk ku la gën a jëm ci kanam mooy ka mën a xam nu muy xalaatee ba teggi pak pakk yooyu aw yoonam dana ca dana egg ci ak jëm jëmuwaayam te aw yoonam du yéex bari na nag ay pakk yu nekk ci yoon wi wàllu moyen ci la bokk waaye teewul ñi yore njàngale mi nañ ko commencé ci directeur général ak ñi fi mos sa nekk sëñ sëñ Abdourahim sëñ Moustapha sëñ Cheikh Amar sëñ Moustapha Diop njëkk mi fi nekk ak ñi ñu àndal ñëpp jafe-jafe yi ñu am ku leen koy wax dana xaw a jafe waaye ñi ngi ànd ak moom ak moyens yu tuuti yi ñu am ñi ngi am ay résultats yu baax sëñ Bachir tudd na ko léegi duñ ci dellusiwaat kon ñu ngi leen sant jàngalekat yëpp yëpp yëpp rawat na jàngalekat lycée bi waaye du ñoom rek ndax dafa am fu ñu tàmbalee ca primaire ba ca cycle moyen ba lépp am na solo taxawaay bi rafet na lool. day wone sellal te yàlla tax ak liggéey ci xam-xam ngir xam ne lu doon lay doon su ëllëgee kon yéen ñëpp ñu ngi leen sant noonu ñu leen sant nag noonu la ñuy santaane mbooleem ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi di fi taxawal sëriñ bi li mu gën a bëgg muy jàng ak jàngale. danaa tudd kenn rek damaa xam sëñ Fallou Ba sax Xasan mi ngi fi wala mi ngi fi excellence la tudd mi ngi fii rek ci ginnaaw garage bu Daaru excellence sëñ Mbàkke Bousso résultat yu am maanaa 47 personnes da am nañ 80 pour cent ñoom itam dañ leen koy ndokkeel ndax su ngeen ko defee ñun ngeen ko defal yéen itam ngeen ndokkeel ndax ñun leen ko defal su ko defee sëñ Fallou da nga yóbbaale waa alxali da nga yóbbaale ñëpp léegi nag loolu su jàllee lii benn la ci sëmb yi nga xam ne fondation danañ ko liggéey ci kanam tuuti dañ fi séddale lenn ci ay dépliant yoo xam ne fiche la muy présenté muy gaaral gisiin ak tolluwaay ak jubluwaayu fondation euh, fondation Gaynde Fatma xëy bi ka dafa tasaaroo wut lool ndax waajtaay bi yeex bi waaye ku ci am rek daanaka mel na ne ñëpp am nañ ci. ngeen gis seen jubluwaay xam ne école yi seen yi nekk ci Sénégal yëpp lañ bëgg gën a soqali waaye itam ak yi nit ki nga xamante ni noonu la ñuy tabaxe euh, maanaam li ñuy wax infrastructure ci tabax yeeg euh, lañ cay teg noonu la ñuy yëkkatee itam niveau bi. ci wàllum jàngale ci wàllum administration ci wàllum gestion lépp ndax dañoo xam ne am réew li ko mën a doxal mooy xam-xam wér-gu-yaram sécurité ak am loo mën a def sa poche te lépp mi ngi koy tàmbalee ci njàng ndax ci njàng ci ngay mën a fajoo ci ngay mën a amee loo xam ci ngay mën a muccee ci ngay mën a xamee fan nga war a jaar fan nga war a jaar kon daal jubluwaay yooyu waa fondation di am te fekk si ci waa fédération bi ñu ngi leen ci sant di ñaanal yàlla mu defal leen ci tawfiq sant nañ ñëpp gërëm di dellusiwaat nag jaglewaat ak cant waa fondation fondation koy defaat nag dama ne le 22 mai ca laa taxawoon bureau fédéral jot li ci jàmbati waa école bi tànkam lu wu leen ni 22 mai ak léegi yàggul ngeen def projet bu toll nii nag kon sunu xel day gën a dal ku sam xel dal nag sañ ngaa sant te ku sant tam sañ ngaa ñaan yàlla ak yaakaar ndollan la ca nag sëñ Cheikh Fassila Ndiaye rahmatullah alayhi daana wax ne inna adaabi la shadidun duñ fa egg ak sunu borom ndax la in kafartum duñ ci dugg ñun tam duñu duñu xarab mukk ñu ngi sant ñu ngi gërëm di leen ñaanal su ngeen yokkee itam ñu jël asalaamaaleykum julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi sant suñu bunt ci lislaam xaadim rasulullah di ñaanal suñu sëriñ suñu wayjur sëriñ Muntaxa Bachir mu yàgg fi lool te wér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 ak waa këram yi doomam yu tedd ya njabootam gu tedd gi su tedd sa euh, di dégg lool ci bis bi xam ne Serigne Abdourahmane ak njabootu Serigne Cheikh Gaynde Fatma ñoo ko woote mu mel ne lépp ci kilifteefu Serigne Ahmadou Makhtar jiite yoon wi la ñuy ñaan Serigne Mountakha Bachir euh, sunu borom eggale ay naalam naalam yim naalal Serigne Touba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 ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax ci initiative bii nga jël ci ak yaa njabootu euh, Serigne Cheikh Gaynde Fatma yëpp ndax am réew xam-xam ko yor am réew ragal yàllaa koy mën a doxal am réew économie moo ko yor bu fekkente ne déwal participation éco responsable bi nga xam ne jël ngeen ko ci réew mi def ko ngir ngir seen coobaree defal ko Serigne Cheikh Gaynde Fatma yaakaar naa ne loolu lu am solo loo xam ne kenn ku ne war na ci kon nag euh, njabootu Daaru Xudoos gépp yaare ko sëñ Abdourahmane ñu ngi sant képp koo xam ne teew nga fi góor ak jigéen mag ndaw di ñaan képp koo xam ne itam sama classe gi nga xam ne Serigne Cheikh a leen formé te boo ko doon wàññi doo doo doo feeg doo jeexal na ci ñëpp jàpp ci liggéey bi na ci kenn ku ne def loo man ak loo mënul ndax moom kat ba koy def booba wax dëgg yàlla lu jafe woon la ndax jamono ja metti woon na addina euh, naqari woon na waaye teewul gis nga lam ji sax na tey jii ba nga xam ne wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi may wax noonu Serigne Cheikh boo ko considéré moom ci boppam man nam réew ci xalaatam ak ak xelam ak i pexeem ak ragal yàllaam ak euh, jaamu yàllaam man na nam réew sëkk sëkk sëkk parce que xalaat bii mu xalaat ba tey jii lii judd ci tey loolu yaakaar naa ne ku mën a yor réew ak ku mën a defar réew rek moo ko man kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yàlla na fi yàgg loolu xam ne am na ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa suñu moo suñu ko muy kàddu nuyoo ak kàddu yi cant ak kàddu yi ñaan jëmma ko ci mboolem njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha te ki nekk ci bopp bi ñu kilifa kër gi di Serigne Ahmadou Moukhtar ñu ñaan mu ñaan fi moom it ànd ak di ko tëj ci loxoom doomam Serigne Abdourahmane Mbacké mi nga xam ne mooy xaritu Serigne Cheikh Gaïndé Fatma moom itam. sëriñ bi di ko ñaanal mu yàgg ci loolu ànd ak ñun ba mu yàgg jiite njaboot gi ak kër gi ba mu boole laaj ci seen jëkku jëkku yëpp Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ngi nuyu Serigne Abdourahmane ak mboolem njabootu Serigne Touba yëpp rawatina nag njabootu Serigne Cheikh Mbacke Diène Fall ndax. moom bi fi Sëriñ Tuubaa dafay jëli fi yoonu yëpp waaye dina di ci am ñaari kër ndax doon li mu doon kilifa képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa waaye diggante Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Bachir ginnaaw buñ bokkee moo leen boole woon boole Sëriñ Tuubaa nag moo tax nii rek lay mën a dem diggante Cheikh Mouhamadou Mountakha ak Serigne Cheikh ñu bari ko xam histoire ku ne xam ngi seen diggante ndax ñoo bokk Cheikh Mouhamadou Moussa Cheikh Mouhamadou Bassir waaye ñoo bokkaat ci wetu ko yi lépp ba ci néegu bëriñ bi ñoo ko bokkoon seen diggante lu xóot la lu rattax lu yaatu kon lépp lu ñuy defal Serigne Cheikh Cheikh Mouhamadou Mountakha kenn waru ko ca jiitu ndax ku ne xam ne Serigne Cheikh xalaatam yitteel du kawe waaye ak dëggam dëggoom kon dem ba seereel la ay kàddu rek ca yooyu jamono te xam ngeen ne li doxoon seen diggante si ñaar bari na loolu waaye seereel na ko lu kon nag loolu lu kàddu yi yooyu rek laa am ci lu ma ci yëkkati ni Cheikh Modou ak Serigne Cheikh noonu la def ñoo bokk lépp waaye woon bëtuwoon mu nekkoon xaritam lool Cheikh Modou fi ñëw lu bari ba nettali na sax wax ne bi muy njëkk a siyaare ji Serigne Soxla bi boobu moog Serigne Cheikh ñoo baax ñaari ci la ko Soxla bi njëkk gise fekk sëriñ Cheikh dafay dafay dafay yónnee ne ko dama ko soxla dama faa bëgg ñëw nee na sëriñ Cheikh ne ko nee na ma dig dinaa ko ñëw nee na ba ma fay dem nag yàlla def na ñoom ñaar ñoo ànd kon bu ñu defal sëriñ Cheikh lu toll nii te yàlla def fekk ko fi muy Cheikh Mahoud Bachir waaye yàlla fekk teg ko fi muy jëmbi sëriñ Touba faaw mu feeñal ci yéen donte la xam ne ne njabootu kër gi xëjuñ ci fukki di waaye nag feeñee lii rek li ci jublu ci lim ci def te nee na it ñu ngi koy ànd ak yéen te ci soññ ñëpp ngir xam ne wutaliw ko sumb bu rëy kon nag sëñ bi dafa ñu ngi ndax xam nañ yoon wépp ñoo maase seereel la ko mooy secteur bi ak sa pëstéef ak sa yitte ci yoon bi ba sa ñaari mag yu baaxee yëpp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 sa xam àdduna dana ko mate waaye sa am pëste ci biir yoon dana ko mate loolu la kon moom woon na jamono ci fii àdduna toll léegi ñu di ko xalaat ba di ko dabu ci biirum jàngat kon nag lii bokk na ci motlil ko naa yooyu te fii nag xam-xam dafa ndax ak Cheikh Mouhamadou Moustapha lu kii maanee la loo xam ne lu jafe la ndax xam ngeen ne njëkk a wuutu Serigne ak boo fi àdduna toll fii xat-xat toll yoonu mu de taxawagut nga war a taxawal lépp waaye sa ñàkk jot ndax li nga yilif dafa bari ndax booba ñi doon kilifa ci biir yoon yi ñëpp Serigne Touba defar lañ ba gisatuñ dara moo fees dell biir yoon yi muy ñoo xam ne mënuñoo topp ci ginnaaw kenn ñooñu la jamonoonteel booleeg tubaab yi ne fi doon jéem ci sëriñ bi tëli ci moom war a mu war a jéem a lijjanti nag taxawal yoon wi jàmmarloog tubaab yi cim xel ba taxawal yoon murit ba yoon bi ak fii tey ci biir loolu la muy xat-xat muy taxawal yoon wi di tàggat Cheikh si njabootu Sëriñ Tuubaa gépp mu leen di tàggat di leen forme ku ci toll ci war a taxaw mu yóbbu ci barab samp la fa ni mu ko defee ci ñu bëree bëri waaye teewut loolaal la muy xat xat xat fii ci biir Daaru Xudoos wala kër gu mu ba ci biir dëkk yi daana jàngale xam-xam ba am na ci lenn ci ay rakam bu mu jum Cheikh Mouhamadou Mourtada ci la bokk ci ay ci waa kër Sëriñ ñoo xam daan leen jàngal ak lenn ci ay luwam kon loolu boole ko kon jafe na kon day mel ne Sëriñ Cheikh cër bi mu am ci xam-xam ba di ko dundal day mel ne foofu la bi muy ndigal la leen Serigne Touba joxoon moo rakam bi tedd gi Cheikh Mahamadou Fadil kon nag ngir bañ a guddal ndax Serigne Cheikh ku duggoon di waxtaan ci moom doo xam fooy tàmbalee waaye doo xam fooy ndax fànn fànn boo indi ci aw doxinam wala ab taxawaayam rek man nga caa tàmbali ba guddi fekk ñu fi maa ngi jéggul nag yeex agsi bi ndax dafa fekkoon ma sori ndigal dab ma ci yoon ma doon ñëw te yaa xam ak bi kon ñu ngi jé jégalu ji fi toog ji fi ñëpp di ñaan liggéey bi ñu tàmbali te fas yéene ca liggéey lislaam ak motli ci yéen ku baax kooku yàlla na ko yàlla na fi sëy suñu bàyyi ci barke suñu Tuubaa ba lépp ngeen mottali ko ànd ko njaboot gépp ak sarak yëpp kenn bañ a manqué wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu jiitu li wax lépp mooy wane liggéey bi nu bëgg a song jotoon na mu ngi gën a jot ndonga li santu Touré te ñu ko doon jàngaloo alxuraan dafa wax ci lisaanu xaalu alxuraan fa lawlaa nafara min kulli firqatin taifa li yatafaqahu fi diin wal yunzuru qawmahum waaye baat bi ñu jëm mooy isaa rajau isaa rajau alxuraan fii nee na léeg-léeg nit jàngi te du ñibbisi lii jàngi lépp ñibbisi wunu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 suñu borom yàggal ko fii lool te moo ànd ak wér. Euh, di sant bu baax. sëñ Abdourahman ci kaddu yi mu yëkkati jox ma ko. Euh, samay kaddu mën naa lott lool. ginnaaw kaddu yi sëñ Bas. Abdou Khadre ak ñeneen ñi nga xam ne jël nañu fii kaddu. damay yëkkati kaddu yi sant rek. waaye euh, cër bi moo rëy ci man lool. xam naa. xam na fi ma toll ci kër gi mu xam ne produit kër gi la euh, def ma ko cëral rek cër boobu mu ma jox yàlla na ko sëriñ Touba yëkkati moom ci boppam euh, ñuy sant bu baax jërëjëf jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala wa man ihtada bi haddihim ila yawmi ddin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mboolem kilifa yi teew ci jataay bi yépp ak njaboot yi ak taalibe yi ak bokk yi ak wëlëre yépp Sëriñ Abdourahmane Mbacké mi ngi leen di nuyu ci turam ak ci turu njabootu Sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma gépp di jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu si Abdul Qadir mi fi teewal xalif général de Mouride Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na ko fi yàlla yàggal lool te may ko wér. di ca teg nag monsieur Dame Diop mi nga xam ne monsieur le ministre Dame mi nga xam ne moo fi teewal njiitu réew mi et président de la république. di leen xamal ne gannaaw bu ñu jëlee ñoom e, njabootuk uh, Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké gépp ndigal ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général de Mouride ak jëwriñam ji ko nekkal fii ci Daaru Xuddus mu di Cheikh Ahmadul Mokhtar ci lañu leen wooye ci bis bii ngir fas yéene teg xer wi jëkk ci jàngukaayu xam-xam bi ñu war a taxawal fii ngir lan ngir yaatale ko jàngukaay yi fi nekkan yépp waaye ngir mantee waajale waajtaay wu mat sëkk ñi war a dem ca daara ju mag jee nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha sumb ngir àggale fa njàng mu mag mi nga xam ne moom lañ waajal ngir jàngukaay bu mag boobu e, Cheikh Abdourahmane wax ne gannaaw boo xamee ne jëlee nañ digal ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ak ci sëriñ Mouhamadul Mokhtar mi nga xam ne sëriñ Ahmadul Mokhtar mi nga xam ne tey mooy jëwriñam ji ko nekkal fii ci Daaru Xuddoos nee na ci léeg ñu leen wooye ci bis bii ngir fas yéene teg xeer bi jëkk ci jàngukaayu xam-xam bi ñu war a taxawal fii ngir yaatale ko jàngukaay yi fi nekkan waaye ngir mën waajale wàccaay wu mat sëkk ñi war a dem ci daara ju mag jee Cheikh Mouhamadoul Mountakha sumb ngir àggale fa seenum njàng ndax école Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké yi yàlla dafa def ñu bokk ci école yi nga xam ne dañ leen a tànnan sélectionné leen ngir ñu war a harmoniser seen programme ak programme daara ju mag jooju di daaray seex Ahmadou Bamba muy université bi seex Mouhamadul Mountakha war a taxawal dëkk école Daaru Xuddoos yi dañ leen a boole ci école yi ñu tànn sélectionné leen ngir ñu harmoniser seen programme ak programme ba ñuy jàngale ci daara ju mag jooju ngir bëgg képp koo xam ne bàyyi ko nga fii boo demee foofu war faa àggale sam njàng doo am benn jafe-jafe ci loolu waaye kuréel gi nga xam ne moom lañu dénk njàngale ni fii itam ci daara yi sëriñ Cheikh yi dañoo bokk ci ñi nga xam ne ñoom la ñu tànnan ñu bokk ci ñi saytu ak tëral programme yi ñu war a doxal ci daara ju mag joojee mu di université ba kon ñu xam dégg ci loolu kon ne daara ji ñu war a taxawal fii doonul lu may bàngaas ci daara ju mag ja nga xam ne moom lañu war a taxawal fële ndax daara jooju lu jiitu ñu ko taxawal sëriñ bi dafa wax daara yi fi jotee na nekk nañ jàpp ne mooy daara yi nga xam ne ci la ñuy waajale ñi war dem ci daara ju mag joojee daara yooyu nag daara yi daara xudus yi bokk ci moo taxam ñu harmoniser seen programme ak programme bañ defan foofa commission bi nga xam ne moo war a saytu loola itam ñañ ca tànn ñu boole ca ñi nga xam ne tey ñooy saytu daara ji Cheikh Abdourahmane nag wax ne kon e li muy jiital rek mooy fàttali nu kaddu yu bàyyikoo ci Serigne Cheikh Mouhamadoul Moustapha ngir mu nekk laltaay ngir ñu laltaayoo ko nekk itam loo xam ne danaa dana danañu soññ suñu postéef waaye itam dana yëkkati itam suñu yitte ba mu kawe kaddu yooyu moo di Cheikh Mouhamadoul Moustapha Al Karim bi nga xamee ne Seyxul Xadim wàcc na ab liggéey ba ñu indi ko fii ci këram gi ci Touba ki nga xam ne moo di rakkam ju baax ci Cheikh Mouhamadul Fadal dafa ànd ak Cheikh Mouhamadul Bachir ak mu Amadou Ndumbe Xabbaan ñu ñëw njaareem fekk fa Cheikh Ibrahima Fall ak Serigne Makhtar Binta Lo ñoom juróom ñooñu ñu waxtaan ba juboo ci àgg ci Cheikh Mouhamadul Moustapha jaayante ak moom nañu jaayante woon ak Xaadimu Rasuul ba ñu defee loola Cheikh Moustapha ne ñokket jóg ne leen bisimilaay ñu ànd dem ba ci néeg bi sëriñ bi wàcce ab liggéey mu ne leen jàmbaar jin àndalan laxasaayu ànd ak moom di liggéeyal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii ci barab bi fi la wàcce ab liggéey te moom de ba mu jëlee laxasaayam nga takk ko fa mu ko war a takk dafa jaayante woon ak boroomam ne liggéey bi muy liggéey rasulullahi laxasaay googee du ko tekki lu dul bis bi nga xam ne ki mu doon liggéeyal muy sunu borom daa yabal ndaw mu ñëw wàcce ko kii muy liggéeyee mu war a dem fekki ko fa ñuy añale ñu doon liggéey mu ne ba mu jaayantee ak moom daaw loolu la wax dane du tekki laxasaay gi lu dul bis bi nga xam ne ca lañ ko fekke fi mu doon liggéeyee ne ko wàccal fii ngay liggéey ñëw wuy si fii ñu doon añale ñuy liggéey mu ne nag moom la mu war a defal wax na la mu waxan def na ko axdimu o ila duxulil janna daaril xaraari wal bu naawal mun mu ne ko nag dama bëgg ñun ñii mu yeesal sunu jaayante ak moom seereel ko jataay bii mu wàcc ab liggéey waaye yéene waale ñi nga xam ne fekke ñu jataay bii waaye buñ ko fekk woon danañ def ni ñu def ba ci ñi nga xam ne juddoo guñ ci sunuy doom ak sunuy sët jaayante gi nag nañ ko dëxëñ ci ñeenti yëf yi nga xam ne bu liggéey bu doonaan ab néeg mooy kenn yi nga xam ne moo ko saytu te mooy lan xam-xam ndax moom dafa daan wax ne bépp mbir mu mara doon mu nekk bu fekkee ne xam-xam laltaayu ko ay borom xam-xam jiitewuñu ko nee na bu yeggee du jag isin aman illam yakun bil ilmi shaabu aw xalal mu ne bu ñaareel ba mooy doole ju boroom na ko def ci yoon yàlla mu ne kon jiitu bi nga xam ne mooy xam-xam te moo yor lépp nan fasaale ci jaayante gi lépp loo xam ne liggéey bi laaj na ko ci xam-xam lu ci waaye yor nañ ko génne ko sa jaayante ngir Sëriñ Tuubaa bu mooy alal ju borom nangoo def ci yoon yàlla mu ne lépp loo xam ne liggéey bi laaj na ko itam ci alal nañ dugal ci biir jaayante gi lépp ku yaakaar sëriñ bi loo ci yor da nga ko génne dëggale ko jaayante gi te yàlla rek tax bu ñetteel ba mooy alal ju la nangoo def ci yoonu yàlla moom itam lu liggéey bi laaj ca loola bu génne ko jotee nañ ko génne dëggale ko jaayante googu ba ca topp nag nee na bu làqu la boo xam ne xel sax léeg-léeg du ca dem waaye moo ne moom de bu fi ñett yii teewee te àndut ak ñoom teeru ñett yii mën naa yam ak seenu ñàkk pee teew muy ay xalaat yu rafet yoo xam ne mooy seet nan lañuy dajale nan la ñuy dajalee maanaam yett yii lenn lu ci nekk ñu jëfandikoo ko fa mu ko war fañ ko war a jëfandikoo ndax nee na xalaat yooyu bu amul doole ju tasaaroo lay doon la ñuy def it tañaxu lay doon mu ne nag Cheikh Moustapha nag ne mboolem ñu yaakaar Serigne Touba kenn ku yàlla xañ yent yii amul ku amul xam-xamu diine am xam-xamu adduna te ñaar yëpp la yoon wi soxla ku amut ñaar yooyu am alal ku amut alal itam am doole joo mën a def ci yoonu yàlla loolee nga xam ne nag moom la Cheikh Moustapha waxan fasaale ci jaayante ak lépp ngir bëgg koo doxal nag moo tax njabootuk Serigne Cheikh taxawal lii nga xam ne moo di e, fondation bii ngir mën a jaar ci yoon wi nu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké e, Serigne Cheikh Mouhamadoul Moustapha e, tegan ngir mu mën a sàmm ndono li ak liggéey bi nga xam ne moom la fi sëriñ bi bàyyee kon sëriñ Abdourahmane xamle ne kon fondation bi cadre la bu ñeenti jumtuwaay yooyu nga xam ne moom la Cheikh Moustapha waxan ne ñoom rekk ci lañ mën a sukkandikoo ngir sàmm ndono li waaye dundal li fi sëriñ bi bàyyee waaye mu nekki tool boo xam ne moom mooy tool bi nga xam ne ci la ñuy a liggéeyale sëriñ bi ci lan ci xam-xam ak lépp loo xam ne lu aji ci wàllu social ak euh, lu suñu dund ak suñu dundin aajo woo kon ñu xam ne kon fondation bi mooy loo xam ne bu ñu waree taxawal daara ju nii ci lañuy sukkandiku waaye bu ñu waree taxawal centre de santé wala lu demee ni ki poste de santé muy barab yu ñuy fajee ak a taxawoo ñi nga xam ne dañoo am jafe-jafe seen wér gi yaram ci fondation bi la ñuy sukkandikoo waaye bu ñu waree gas ab teen wala ñu war a bënn ab forage itam ci fondation bi lañuy sukkandiku ba war a koo def ak lépp loo xam ne daal lu aju ci lu la suñu mbiri diine ak suñu mbiri mbiru àdduna mu ne kon fondation bi dañoo bëgg mu dupp ni ñu ko duppee Serigne Cheikh Amadou Mbacké mu wuutu Serigne Cheikh Amadou Mbacké fa Serigne Cheikh Mbacké féete woon diine ji féete ko askan wi ci leen taxaw ci lépp luñ mën a te jàkk ba tax na dañoo bëgg li seen yéene lépp lu ci waaye def mu mel ni ci loxol Serigne Cheikh nga ko teg lépp lu ci waaye def it fa Serigne Cheikh daan dugal lañ ko daan jox insha allahu fa lañ koy dugal loolu nag moo tax ñu tàllal loxo yépp lii nga xam ne moom la Serigne Bassirou ñaan wax ci taxawaay bii ci def kon wane na ne loolee Serigne Mouhamadul Moustapha waxan kat taalibi yu bari dégg nañu ko ndax lii maam Cheikh ñoom njëkk a def mooy li yoon wi mooy li njëkk a wax muy borom xam-xam yi jox seen contribution ci seen xam-xam dëggale ko seenu jaayante te yàlla rek tax ji nga kon architecte yi ak technicien yi liggéey bii ñu def tàmbalee ko waaye la ci war a toppaat it muy alal gis ngeen ñii fi sëriñ Basiiru tudd ci ñoo xam ne ay bàyyi defal yàlla lañ ñoom itam dëggal nañ seenu jaayante sëriñ Tuubaa ci wàll googu noonu itam nag la bëgg bu ñu demee ba liggéey bi ak itam yàlla jox xeet yi yëpp muulkat yi maanaam carreleur yi ak mboolem borom xarala yooyu ba ci ferrailleur yi kenn ku ci nekk nanga nga sa yéene ak sa taxawaay ci liggéey bii ñu boole la ak techniciens yu yor liggéey bii ba ni nga daan demee toolu àllarba nga di ko ñëwee ci liggéey bii ci sa xam-xam boobee nga am ndax kat doole muy côté main d'œuvre ci yoonu murit la tàmbulee ci jumaa njaareem ba ci jubaay Touba jii di carrière bi ak raay bi lu ëpp cinquante pour cent ci main bi taalibe yi ñoo ko assuré woon ci seen doole loolee nag luñ ci sumb lu nekk lool la kon nag moolkat yeeg ferrailleur yeeg maçon yeeg ñëpp ñu ngi leen di invité comme nii ki nga xamee ne ni la architecte yi ak ingénieurs yi ñëwee joxe seen contribution ci wàllu xam-xam ci wàllu fondation bi kon lii mooy kàddu yi nga xam ne moo jóge ci sëriñ bi li koy jeexal sant nag lool Cheikh Mouhamadoul Mountakha ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne am na ko ci bis bii ak sas wi nga xam ne moom leen moom la leen tobbil ñoom ñëpp te muy lim bu takk bu am solo bii nga xam ne moom la jox joxe mu jiitu ci biir liggéey bii waaye nag sant mbooleem ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci topp ñëpp tañ tudd leen te ñu joxe lii waaye sant mboolem bokk yi nga xam ne ñoo wuy si yëpp ndax xam nañ ne jamono jii ni mu xate ku ñu woo ci lu mel nii nga wuy si ci mooy jox cër ki la woo ak jox dayoo dayoo li ñu la woo moo tax nga wuy si kon yàlla na leen yàlla fay lu kawe seen njort ci lii ci darajey ki ñuy liggéeyal muy xaadima rasul wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu أنت العزيز الأنفي أقيم بإيستي إذن يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل الغداء بلاسي اللي اخترت يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون الإنقاذ كل الغداء بلاسي اللي اخترت يا الله كلام كلافي كبر بلا كلاف يا متكبر تلك يا الله يا خالق الخلق لغما أساء أبدا بالبر والسر والرلوان يا الله يا بارع الخلق قد لنا فدونا سن وخن لي الأجر للجنات يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو للمكر يا الله خذت لي كل سن بن قد أتيت به لسأت بسكريا يا خضار يا الله خاتلي ربيعك دعي بلا سبب مني غمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا خمس ألتي فلا كسك ريايا wa abu